dañu yaakaar ne makki Sall su ñëwee dina arrêté loolu wala boog li ñu jotoon a jox ñeneen président yi jotoon a jox dina ko jëlaat delloo ko askan wi waaye gis nañu ko ba léegi loolu mu ngi mu ngi continuer di wéy wala tey sax nit ñi ñëw nañu fi pour ne seen naxaar waaye gendarme bi taxaw nañu fële tere nit ñi dem ci plage bi je crois que loolu yëpp dafa ñaaw ah il faut que président am habitude déglu askan wi eh, bay nit ñi di ñaxtu. surtout su dee dañuy jóg pour ay cause citoyenne cause boo xam ne xëy na concerne moom directement waaye dafa concerné ñeneen président yoo xam ne avant lui nekkoon nañu fi te seen loxo dugg na ci pàcc waaw je crois que liggéey dafa war a arrêté eh, xam nga euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di di pàcc corniche bi eh, dafa war a leer ci ñoom ne xëy na Macky Sall euh, li nga xam ñu ngi koy xaar ci moom maanaam mu delloo ko ci askan wi du ko def waaye beneen président su ñëwee suñu fi yem ay milliards kooku mun na ko nangu delloo ko askan wi loolu am na France eh, mais on a détruit ay résidences yoo xam ne ay milliards milliards lañ ko tabax kon il faut que loolu leer seen bopp askan li mom ben président mënu ko joxé n'est-ce pas te euh, euh, mu nekk une session définitive loolu mënul am. la loi elle est erga omnes elle est au-dessus des hommes loolu dañ ko wara def légui suñu momel fi Sénégal diko dundé dundee défé loi ne littoral bi dafa am numuy démé demee kenn amul droit sanc mais lutax ya xeyti ñu jël ay nit. parce que am nañ daraja am nañu tuur am nañ dugg dugu ñu ñëw di leen ko jox xoolal xale yi ñii ak ñeneen ñii def sport fii mais ñëpp bëgg bu ñu dox di xool géej gi bu ñu dox di nooy si géej gi nangu nañ ni géej tamit kenn munu ko bàyyi noonu mën nañ fi def ay aménagement yoo xamante ne ay aménagement yu am intérêt public lay doon nga xam nga jël benn nit jox ko mille mètres carrés loolu xam nga ne loolu saaga la. saga population bi la faale population bi comprend comprendre nga donc motax ñun ñi ñëw fi symboliquement teew en tant que individu mais également mais également en tant que euh, ku togal fi sembix mu ngi chargé mu ngi charger waxal ak waxal waaw mu ngi melni mu ngi melni ñu ngi leen di disperser donc gis ngeen gis ngeen nonu y a y a la police y a la police qui donc chercher à disperser les manifestants.